برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان barakaatu ñu ngi am mbégte ak kontaante bu bi nekk nii néegam naari ñu ngi nii du dëkk du dëkk du dëkk su baa ngi nii taxaw sëriñ dara man mii di wax ak mooy trois minutes léegi dugg naa ba nuyu ko nit ñi ñu ngi war ci internet bi di wax naan sëñ bi dara dalu ko dara dalu ko. jëriñ pos Sénégo Dakar Actu dañ bàyyi li ñuy def nit ñi ñuy rey dara dalu leen sëriñ bi mi ngi ci jàmm mu ngi ci jàmm bu baax a baax a baax sëriñ bi mu ngi ci jàmm neen bàyyi sëñ bu ñu rey mu ngi ci jàmm mi ngi fii ci biir néegam dugg na léegi gis ko waaw ne xalifa bi nii mooy de trois minutes léegi dugg nañ ci nekk nuyu ko ñu ngi war internet bi di wax naan sëñ bi li ma dal baaxul dara dalu ko mi ngi ci jàmm bu baax a baax léegi ñëw euh, war nañoo may ay policiers yu ñëw di seet fii di gàddu. Mhm. parce que lii mu nekk ci euh, fi ñuy gàmmoo. Mhm. léegi di fa fanaan di tëdd di ko liggéey. dañu baax ni di seet ci affaire wax yi gaa góor gi. Mhm. jàmm rek toog di lekk. kon xibaar bi sëriñ bi ñes euh, ginnaaw bi ñu lay ziare àdduna ñu ngi lay déglu ndax waaw gis naa ko mais bëgguma ko filmer ak euh, ni mu nekk noonu ah. waaye man gis naa ko te confirmé naa ne gis naa ko nuyu naa ko alhamdulilah waaw euh, su amoon kenn ku mun a wax ci ñii rek waaw yow nga nekk sëriñ sëriñ bi nekk ak moom euh, ñu am xibaar boo xam ne jot nañ ko léegi ci internet bi euh, mun ngeen ko weddi waaw waaw parce que sëriñ bi léegi la toog man maa ko tagalay mu day ba suuf dara jàllu ko macha allah dara dalu alhamdulilah mi ngi si jàmm waa alhamdulilah dañu wax ni ay fen la wax dëgg bu ko wax non ñun ñu nuyu nañ ko ñun nuyu nañ ko ba pare bu mhm. koy wax yàlla na ko bu ko wax waaw parce que lii ay fen la rek li ñuy li ñu yéenee seen bopp la rek waaw 这你再买。 su ngeen gisee mbir euh, mi yëpp. sëriñ bi mi ngi fii mi ngi ci jàmm nuyu nañ ko léegi mi ngi nii bu ñu ñëwee néeg baa ngi nii nit ñaa ngi dugg si kenn nit ñi lay toog bu ñàkk bu doon bëccëg euh, da ngeen ko gis waaye du respect ñuy film xalifa euh, bi ci téléphone. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi nekk taalibe bàyyi leen nii Sénégal di wax àddina bi yëpp ne sëñ bi mi ngi ci jàmm defu dara dara dal ko mi ngi ci jàmm mi ngi nii toog téye kurusam di waxtaan ak mbokkam yeeg sëtam yeeg am di jàmm néeg bi ngeen di gis nii mooy nekk xalifa bi ñëw léegi ñu ngi ci biir ma mii di wax ak yéen dugg naa ba ci biir nuyu ko waaye lii daal du war nañ cee jëlaay matukaay daal Sénégal daal war nañoo wax ak ñoom. waaw. waaw wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax maa ngi nekk paa bi ñu ngi ci jàmm wax dëgg yàlla ñu ngi nii toog ñu ngi nii toog ñu ngi nii toog ñu ngi koy benn tànk ya ak ndax naa ko ya ñu ngi nii toog dara dara ñu ngi naan léegi même pas même pas 15 minutes même pas 15 minutes ñu ngi naan ñu ngi naan sama sama jëmmi bopp maa ngi nii ci nekkam jamono yi may wax ak yow dal la xamul kenn moo ko gisee la mais tegul ko fenn parce que lii moom lii moom dafa ñaaw dafa ñaaw trop moom jot na jot na ñu jël ci ay matukaay daal waaw wan nit ci ñu jël suñu ci ñoom parce que safaan rek la ñuy bind ci ci ci ci nit ñu baax tey jii may wax ak yow ministre bi yor wàllu bi ñëw na fi tey ci ngoon fii paa bi daloo kenn bindul amul benn site bu ci bind ministre bi yor wàllu courant bi léegi tàkkusaan bi ñu woon fii kenn bindu ko toog rek di saagee kilifa ñu ma def yal na leen yàlla xalal nit ñu bon ngeen yal na yàlla defal seen yéen yéen bon moom yàlla yal nuta baaba baaba yàlla yàlla lu gudd ak wér-gu-yaram yàlla sàmm ko aar ko barke ngeen ko toog ak ay dana incha allah dana fi yàgg maa ngi nekk dugg ñu beneen yoon ñu jox leen di daje beneen yoon incha allah ñu arrêté rek ñu beneen yoon jërëjëf أرهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان